Cheikh Dieng bu nekkoon directeur ONAS ñu dafa passé ay dafa passé ay marché marché bi bañ ko défé jaar na ci ay services compétent ñu contrôle ko wax ne marché bi normal la bu ñu à un moment donné bo xam ni tey ministre c'est le ministre mo mo dugg ci mbiri liggéey ONAS parce que d'accord mën na see dugg ndax tut moy moy tutelam né contrat bi ñu ko défé baaxul Nous ngi tuddante man ce qui me dérange dans tout ça on peut pas parler de des milliards des surfacturations nga may wax ay oto jox 80 millions 83 millions. pendant ce temps boo ñëwee fii ni ko Masaalikul Jinaan tali bu jëm tali bu génnee Colobane dem HLM c'est impraticable Quel mënu fait jaar ndox parce que aiguille yi lañ curé comme ni ñuy jiyante noonu dañ pour mu curer nangam curer nangam. en fait curage curage tamit nekkul ne dakaar gi dong la war a yem mënuma comprendre nga dem tuubaa màggale Touba ak nit bu taw baa ngi ni di ñëw nit ñi di am problème inondation problème bu mën ngeen ñu nekk fii Cheikh Dieng moo wax lii Cheikh Dieng moo wax lii Cheikh Tidiane Dieng moo wax lii ak lu mënti xew ñoom ñaar ñëpp am nañ responsabilité ak lu mënti xew ministre bi am na responsabilité morale boo xam ne mu ngi ci parce que mooy ministre tutelle bi marché mënta jaar ci ministère am sans pour autant mu lan ak ak le directeur de l'ONAS ba nga xam ni tey moo proposé marché bi gaa yi def soumission def ko ba ñaar nit ñaar nit mën ko gañ ak lu mënta xel am nañu responsabilité donc donc amul point de amul mënta point de ba nit ñi gëm ba lint lint lint xeli nit ñi ne am na lu xew am na lu man démb sax dama foogoon moom mooy ñëw à ma grande surprise à ay directeur mais directeur yi wax ni yëpp marché bi fekk nañ ko fi fekkee nañ ko bokkoon na ci directeur xaw ma dal l'assainissement bu ñuy def marche pour l'assainissement kay xanaa moom dana ci bokk bal dara ci benn semaine am na ñetti discours yoo xam ne plusieurs discours yoo xam ne bokkul loolu ça n'honore pas le jubal jubanti surtout ça n'honore pas ça le premier ministre Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye nañ nañ jël ses responsabilités ñu édif ñu régler affaire mu jeex une fois pour toutes parce que le problème des Sénégalais sont ailleurs que Cheikh Ndiaye wax na lii Cheikh Tidiane Ndiaye wax na lii Cheikh Ndiaye wax na lii Cheikh Tidiane Ndiaye wax na lii. Mhm. fu mu ni Abbas sax nit ñi on en a parce que nawet bi mu ngi fi nit ñi. Dakar gii nii période bii lañ leen gën a soxla. ñoom waa ONAS ak mm. euh, mbënd mi bi ñoo soxla gis nañ Touba surtout. je te dis au niveau de Dakar bu ñuy wax nii nii nii. Mm-hmm. am na ay localités yoo xam ne mënutoo fa parce que ndox mi mu ci biir tali bi mënut a jàllee aiguille ñoo fat peut-être mën na la période de grâce parce que ba ñuy falu fekk nawet bi engagé une insurrection maintenant avant loolu lu ñu njëkk a waroon njëkk a mooy curage yi ñuy wax noonu ñu génn xool dem si aiguille xool pour ndox bu ñëwee taxaw ndox bi taxaw. ci biir tali bi moo tax tali di yàqu. effectivement moo tax tali di yàqu. ñoom man man dara leeragul sama xel dara leeragul le premier ministre mm-hmm. na jël mbir mi ak loxoom. comme nu ngi koy defee bu amee lu xew Sénégal mu ñëw ne kat lii am na li am mu leeral ko une bonne mu leer dem ci yoon parce que déjà gis nañu ku ci mel ni démb le député Thierno Alassane Sall wax na que dina déposer plainte mais avant plainte boobu euh, pour mbir mën a leer je pense que war nañ ko mën a yóbbu ci ci ci ci yoon xool fan la dëgg dëgg féete bu àggee ci situation bi nga xam ne Cheikh Tidiane de bien vrai que déggaguñ ko mais gis nañ ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane bi muy génn yor ay documents vanter des documents yoo xam ne wax na ni même bu fekkee dañ ko yóbbu ci yoon paré na pour prouver li nga xamni mom la wax donc rien que pour ça won nañ dem ci yoon pour léxal mbir xam nga bu koy bës yoon tey mm. supposons tey ñu def citation à comparer ak Cheikh Tidiane Dièye mm. période mën mala nangam muy bàggaas diggante tribunal ak diggante bureau ak ainsi ainsi de suite mm. ma kenn mënta am information nécessaire boo xam ne ni premier ministre amu ko kenn mënta information boo xam ne ni tey président de la République am na ñoom ay voix autorisées lañ war nañoo mën a édifier les gens affaire bi nii la demee nii la demee nii la demee nit ñi mën a comprendre. puisque ñoom ñoo bokk seen coalition bi bu ñuy jiiñante kii def na lii kii def na lii parce que kenn ku ne jàpp nga ne yaa ngi toog sa dëgg. dëgg boobu nag am na njiit ñoom boo xam ne moo leen fa tegoon. njiit ñooñu ne moo war a jël responsabilité bi leeral bi comme nu nga koy defee bu dara xew ci réew mi def live ne lii kat moo am nii inondation yi mu ngi am ci dëkk bi nit ñaa ngi sonn nit ñaa ngi ko boole màggal gi fii nit ñaa ngi ko boole nawet bi fii nit ñaa ngi ko boole énormément de choses boo xam ne xew na ci biir dëkk boo xam ne Séné Sénégal yi am nañ benn yeneen yitte yoo xam ne toll nañ toog toog war nañoo toog tooguñ fi naan la Senghor moo def Cissé moo def Diallo moo def doolu soxla suñ ko luñ soxla mooy liñ leen dénk ñu xool la te sotti ko def ko lu jub jubal jubante ak lu koy biraam bi yokkee ak la leeral <laughs> ba nga xam ne nii tey. kenn ku ne bépp Sénégal am responsabilité ba nga xam ne am nga sa responsabilité boo xam ne nii lii bu la ko joxee lii bu amee. effectivement lii ak lii la demee. premier ministre na arrêté débat bi. fay débat débat bord de fontaine laa koy waxee dem tëdd kii maa war a taxaw kii war a loolu na ko arrêté. bu ko arrêté moom il a des informations nécessaires boo xam ne tey moom bu ko waxee moom c' est une voix autorisée. le mhm. président est une voix autorisée. très bien ñaar ñu xuloo nag kenn kii mën tax ba nit woon ko mais koo xam ne moo leen yéene bu toogee dana la kat ah. wax dina jeex. Mhm. affaire bi nii la demee nii nii la demee nii la demee su nekkee dafa am ñoo xam koo xam da cee luubal. Mhm. jaawale poosam ak poos yu nguur boobaa njël yooyu dossier bi teg ko si justice bu nekkee ne amul loolu nag ñu bàyyi wax ji. Mhm. dem liggéeyi. dem liggéey mbënd maa ngi fees fi dell surtout Dakar gi fii nga xam ne bu tawee sax BRT bi mënatoon jàll fu mu ne ndax day day fi nga xam ne am na yenn quartier yoo xam ne si biir capitale Dakar fii nii ne mënutoo fa jaar cité naal tali bu jógee rond point Colobane dem HLM côté Massalikul Jinaan noonu dafay ba tey ci ay praticable kenn du nu faa jaar tali baa ngi yàq ndox yaa ngi tali bi mhm. défaut mhm. ci seen coow yi moo indi seen seen coow yi moo ko indi il faut que affaire bi jeex càlla il faut que bu mhm. jeex ñu taluñ loolu on a pas besoin de saa kii moo def kii deful soxla soxluñ loolu lu soxla mooy nit ñi génn si mbënd bi nit ñi am luñ lekk nit ñi am fu ñu tëdd nit ñi am ñu naan nit ñi feebar dugg hôpital faju ñun loolu préoccupation nous ñun lu Sénégalais mom la am kaata kii def na kii deful le premier c'est la voie autorisée c'est la voie autorisée té am crédible na na leer nit mhm. d'accord très bien monsieur Cissé aujourd'hui les priorités ñu ailleurs mais li ñu gis mooy